Ok, je vous en ci loo nekk mais namu naa leen de bàyyi naka Paris. non wax loolu yow tamit xam nga man bu ma juddoo ba léegi c'est la première fois ma ñëw fii nga xam ne mooy Sénégal alors que ne fi laa cosaanoo quoi Paris neex na trop mais ren moom 31 décembre dama ko bëgg a féete fii nga xam ne mooy Sénégal. non non non non ànduma feeg benn jigéen man Cheikh rek moom fii sama. non yow t'inquiète ci côté boobu quoi yow ñoo far mais après dinaa la rappeler teg ok waaw jaajëf nekkal si jàmm waaw mais mbaa déranger wu ma la. non non même pas je vous en prie je vous def. waaw maa ngi si jàmm gannaaw yow fii. non ma ñëw fii Sénégal. mais yow mere naa la de. Ah. yow ñëpp di wër dem fête ji seen i fête de 31 décembre Paris. yow nga nan sa xarit bi du ma ko féetee Paris fi la koy fété xanaa xamone xalé Sénégal ñëpp Paris la ñuy wër pour seni fête mm-hmm. ah grand nak lolu mom neexuma mom ah, ah bien sûr. non mais man de dafa fekk né mo ma ba légui ma ngi soko ñew ñëw Sénégal. Paris nga juddoo. man nationalité française la ko kon yàggoo fini depuis combien de temps nga ñew une semaine rek la fi une semaine bari wul hmm? ci loo nekk nag. mais loo doyee Cheikh doyuma ko dara nag doyuma ko dara sama téléphone bi ma amoon benn erreur rek ñu suggéré ma ko comme comme sama càmmiñ la ma ne xaaral ma ñëw mu xoolal ma ko. mais yooyu ñu ngi am ba léegi. ah Sénégal looloo fi am bëgg WhatsApp bëgg selfie da benn téléphone baaxu fi. téléphone yi moom ne la yàqoo moom yaa ma gën a xam.

restaurant privé yi place yi nga xamante da nga fay dem lu dugg fa ba génn te du xam kenn xam ne ñëw nga fi sax. dëgg neexul yu place yu baax yoo xamante ni ça spécial pour fin d'année la. oui parce que man bëgguma dara ay siiw. kenn warul siiw kenn warul siiw loolu maa ci ànd ak yow. Ah. léegi nag xam nga lu bëgg. yow say 31 mën nga koy feetal ndax maa lay téye sama loxo yow kenn du la gis di la xool ngay dem. jéggal ma lii. yow da pare xanaa gisoo sa bopp. waaw loolu dafa leer ne xam loo bëgg. ma bari na. xam nga bëgg. waaw may jox sa numéro ma def la signe wala nga jël sa poste ma signe ñu déggante léegi léegi léegi léegi. waaw indi tàkk def ko fii. bii la. boobu la bii moo nekk ci whatsapp bi. non moom la su ma woowee dinaa la jot. ma bu ma la defee signe tuuti ni la man la awa. nga yéex maa woo man dinaa la woo directement ndax yow maa lay téye fii ca ba muy moom. Ah, yow dañ laa war a jël di la teetee mbaay ndax pare nga jóge. rigros ngay te waxal nii de. rigros men. dafa leer ko waxee ma gëm ko waaw ma nationalité boobu man dinaa mën a tukki. dama lay defal nationalité ba pare may la iPhone X ndax xam naa ne lii nga yor mu ngi lay sonal. iPhone X mooy tëmbal ak moom ci piscine. ci piscine nii nii nii. man mu bëgg photo wu selfie mii. ma la koy may ngay xooju ay piscine. lenn nag laa la bëggoon a wax xam ne ñëw non xaar ko non jarul ma koy xam. dama koy sonal garaawul après day nekk fii di ma wëri jiwaat pour def ma téléphone bi dama koy def coono. yaa ma a dinaa la woo léegi yow ma su la defee sëñ bi la message ni la man la awa rek. yaa ngi dégg yow boo ma deful si ne boo ma yeexee tontu rek man dinaa la woo directement. ñu waxtaan ndax yow dañ laa war a téye ci ay loxo. yaa ma gën a xam. xaaral sama appel su ma génnee léegi defar téléphone bi. سواجي No, عليه فترة نقطع بسم الله والله يو والله لمك gis nga xam nga ne ku xeebul sa noos kenn daaxu la noos waaw loolu de moom olof yeeg wax moom gis nga man de nii laay No, no. booy amul benn booy boy fi ñëw ñëw waaw di ma seet non non Cheikh fii kenn ñëw fi benn booy ñëw fi Cheikh fii kenn ñëw non may booy moom non sànq la ma woon yow moom dangaa mer be waay dama waroon booy bu garaaw booy xale bu mool boo xamante ni fis bu xoolal rafet gi foo ko natt weesu na ko xam nga la moo metti ci yow hmm. dañ lay tayle rek man sa wax ji wax ji wax ji gis nga indi fi kan kan la ñuy man Cheikh ndaanaan baa ngi nii non kan la ñuy man wala yow Cheikh ndaanaan baa ngi nii toog <laughs> barki démb nga ma ñaan fii gel waaw loolu ay bagage rek kii trois cent wala wala wala wala deux cent cinquante. pour lan. non dama bëgg jënd benn ngàtt saf benn ngàtt saf laa bëgg jënd booy bi ñëwee ma xoojal ko. chaque nga ruus loo chaque jour. Cheikh booy bu ñëw nga jëndal ko boisson tegal ko fii ay pomme naan ma ay ngàtt saf. man loolu mësuma ko dégg sax ba ma juddoo ba léegi. booy. Cheikh xoolal sa bopp. booy boisson ñi am xéwal ñoo koy jënd. kon ngay am. man aw ma xéwal. Cheikh yow ngaa war a toll tolluwaat sa bopp. non booy buy ma bul dugg foofu abal ma foofu deux cent cinquante mu jënd benn ngàtt sax xoojal ko ko. Cheikh nag moo wax la dëgg man benn lax si vingt cinq laa yor te ci laa bëgg a jug jëm bi oma. vingt cinq ju bëri nag looy mën waaw. bu bu bu la yoree vingt cinq francs sa poche. Cheikh yow loo yor. nga amul mu xewul. waaw kon xam nga ma tànnee la ko man yor naa 25 te yow yoroo dara. naay jël paie ngay jël deux. mais man boo yoree 250 abal ko. c'est que rek yow xamal mooy sa problème yow. da ngaa doon defee quoi yow. non hmm. hmm. non man faaw moom xewal non munu ci ñàkk faaw moom xewal bu jëree massage gi sax naa ko def parce que lii nag bu yàggee booy dootuñ la gëmati de. mais rek rek wuy ma booy booy foot jëlaalee sama caleçon yooyu waay nga nga xoojaale ko dégg nga bu la ko xool lu yàgg nag sinon rek da naan dégg nga sinon ndox mi caleçon yi day naan lépp. Isawagi. Kok telepon di? iPhone satu bang ini. ini, telepon kenapa pak? Ini, ini aku nih dia ini. sama bi sama kibek gana kerau sama gunur gek gana kerau <laughs> dana lanak sa su gelam ko amu nga din ko tayle ko ben gel nyimu ko ku ko tayale tiga. ci